jërë ngeen jëf mbokk yi ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu euh, comme fi nga xam ne fi lañ leen baaxoo di nuyoo samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h seen émission Petit Métier ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h Mamadou Diaw Dial mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Mouride mbaw euh, muy euh, cordonnier maanaam Oudé Mouride Mbow maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ Abdou Khadre waaw nga nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo lay déglu ci réew mi FM. waaw maa ngi wax salaamaaleykum wa rahmatullah auditeur réew mi FM ñu nekk si biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu waa kër gi yëpp. d'accord tàmbale ci président Mbagnick ak équipe bi yëpp di la nuyu sëñ Abdou Khadir bu baax a baax. jërëjëf euh, Mouride mbaw yow euh, cordonnier nga. Ah. Euh, métier cordonnier maanaam mooy uude. waaw mooy uude waa waaw euh, métier moomu métier yi gën a yomb ci métier yi la wala métier mi gën a jafe ci métier yi. waaw sëñ Abdou Khader laaj nga laaj bu am solo euh, métier la bu gën a yomb ci métier yi waaye métier la bu gën a jafe ci métier yi ndax bul fàtte ni métier da ko war a jàng ba mu mokk sëñ Abdou Khader waaye li am tey def ñaari at ñetti at beru commencé liggéey. yenn saa nga liggéey ñaari daal mu war a nekk gauche ak droite mais soo xoolee day niroog ñaari gauche wala ñaari droite ndax métier mu ñàkk a mokk sëñ Abdou Khader euh, quatre naar yi fekk na maa ngi jàng métier mhm. quatre vingt neuf événement naar fekk na maa ngi jàng métier parce que fi ñu bokk moo tax doomu ñeeño duñ ko bàyyi muy bërgël day am encadrement ku nekk day wax duñ la may temps booy foowee dama daan jàngi su wàccee ñu ne ma demal atelier. Euh, ah, boobu ñu ah, ah, say say dañ euh, dañ doon def euh, dañ doon daal defar daal. waaw sama nijaay ki bokk ak sama yaay ndey ak baay topp si man cordonnier la moo ma jàngal métier ma sonn ci torom nag. bi mu jàngal métier yan ñaat at nga amoon. boobu xam naa daal dix ans yi. kon kon jotoo dugg école jàng école niñ koy defee. wala non franco arabe laa doon jàng. su ma jàngul dem atelier. soo jàngul dem atelier. waaw su ma jàngul rek dem atelier sama xale yi sama morom yi ñëpp bu ñu daan fooy man du ma am temps fooy parce que may ñu ma temps boobu. may ñu la may ñu la temps pour fooy. waaw may ñu ma temps pour fooy ma daj ci lu nekk sëñ Abdou Khader. mais est-ce mais est que loo bëggoon la aussi naam bien vrai que say waajur dañ doon defar daal nekk. Euh, waaw ay cordonnier mais est-ce que nekk nga nekk na loo xam ne métier boo bëggoon la. waaw ba ma koy ba koy jàng nag nekkul woon lu ma bëgg ndax xam nga xale liñ koy liñ koy poussé li si ëpp du ko bëgg parce que du xam njariñ bi waaye soo màggee ba mu ba commencé la jariñ sa ngay si ngay si ngay xam ni li nga doon daj euh, lii lañ la bëggaloon parce que bëri na fi ñu sonn ñàkk métier moo leen sonal sëñ Abdou Khadre xëy am foo am destination jubali sa atelier tijji sa atelier dem uti la la yàlla wërsëgal ñu bëri bu ñu sañoon dinañ ko am te ñàkk métier moo leen ko. d'accord léegi euh, euh, Mouride Mbow. waaw yow yow métier bi euh, fan nga ko fan nga ko commencé. maa ngi ko commencé sama atelier ñoom nijaay. nga xam ne su ma mësaa. fan la. waaw tali bu mag. tali bu mag. Rëbina Xalifa. ah yow tali bu mag Pikine fi nga fi nga fi nga juddoo fi nga yaroo wala wala. waaw. Euh, ñetti mbaar gi fi laa juddoo fi laa màggee Pikine ñetti mbaar. fi nga màggee. donc daan dem ñu dëkkoon ñetti mbaar aussi euh, samay nijaay amoon atelier tali bu mag fi shérif bi di wàcc noonu tali bu mag. waa mais gis nañ tali bu mag euh, pikin banlieue bi. ni mu xawee rëb rawatina jamono jooju. rëbaay boobu ndax amatoon lu mu kii si yow. waaw su fekkoon encadrement bi bàyyi woon nañ ma ma ma ma def lu ma neex kon tey dinaa bokk si. bandi wala wëy yu gën a mag. ci Sénégal. ci Sénégal yàlla hmm. xam na ko waaye may ñu ma fu ma nooyee sëñ Abdou Khadre sama nijaay defaral na ma façon yar bu nekk xam nga dañ daan liggéey deru nag. di liggéey ay deru xar. da daan defar ay yaru deru nag defar ko ba mu rafet orne ko ay mbicc lépp man maa taxoon. façon hmm. yar bu nekk defaral nañ ma ko. waaye ah dañ la doon maanaam boo mosaa def loo wurtu def dañ la doon bàcc bàccal. bu baax sax. Pikine lañ ma daan jàppee ak yar ba ñetti mbaar Pikine ba ñetti mbaar. ah da ngaa xaw na léegi da na léegi damaa xaw na léegi dem naa ba benn moment doon naa ñaan yàlla sax yàlla naa faatu. eh ëpp naa def. ak ndax coono Abdou Khadre li mu doon dund man ak maa xam euh, beneen bi si des dem naa bay taxaw si si si miir rëdd këriñ di di di naan ba xam man dinaa màgg ba xam dinaa mës dem ba nekk mag ndax coono yi métti. maanaam boobu yow da ngaa lankoon bañ a jàng métier mi. waaw boobu bañ moon jàng métier mais xam nga mbumbaayu xale yi xam nga sa morom yi ku ci wàcc ecole mi ngi. mi ngi mi ngi dem football dem géej ak football yi ñu ngi dem géej. xam dañ daan dem dex meew dañ daan dem donc yow may ñu la loolu. Mhm. su ma mosaan dem géej sax sama yaay day dem sama nijaay. murid da day dem géej xam nga ñu ñëw ni ma day doomu ñeeñu nga ah lii waru dugg na fii génna na fii xam nga may ñu ma daal fu ma fu ma fu ma di daawoo jëlee añ ak yooyu waaw daan naa jëlee añ ah. di ko jëlee euh, ñetti mbaa di ko yóbbu tali bu mag da nga doon dox wala dañ la doon jox paas dama doon dox doon daj lu metti yenn saa yi du ma añ parce que yenn saa yi dama daan jóge tali bu mag ñëw kër ga fekk sama yaay dem xew donc noonu laay wàññeeku waatee dem atelier su ma demee biscuit lañ may jëndal moo tax ma noonoo ak biscuit ba léegi ah d' accord léegi euh, bi la sa nijaay di euh, force si métier moom waaw kañ nga mujj daal xam ne Mouride Mbaw mii réglé na. waaw bi ma demee ba commencé di mën di defar di am as tuut ay weccet parce que maa ngi tàmbalee defar daal euh, yéen daan wékk si oto yi chauffeur clando yi am na daal xale yu daan wékk ci oto yi. waaw boo demee terminus talib bees chauffeur yi fa nekkoon ñëpp maa leen ka daan defaral. di ah, benn benn benn daal rek nga leen defaral. waaw benn daal rek. Ah, donc jaay di am weccet ndax boobu cent franc ku ne xam ne ni bu ko xale amee dara la woon waxuma la ak ay deux cent jëm kaw hmm. mille franc nag tabaski ak korite laa ko daan laal mille franc ah da daa bëri da daan bëri mës naa gis kayitu dix mille ne gis naa un million su benn boulangerie <laughs> xam nga wute naag tey uh-huh. waaw mu nekkoon lu metti trop mais lu ma si dajoon ci coono rek tey yàlla dimbali moom mais mais bi ngay daj coono boobu noonu si ci atelier bi euh, am nañu ñeneen xale yu nekkoon ci atelier bi non non non non man maa fa nekkoon ak sam beneen cousin bu jóge woon village. te mhm. ñoom duñ suñ ñëwee dañuy demaat do basé wuñu woon. yow daal lu fa ëpp daal yow ak sa nijaay fa newoon. waaw man maa fa nekkoon maa doon def liggéey yi si ëpp. waaw nekkoon jàmbaar aussi nekkoon jàmbaar ba mu feeñ ba nga xam ne sama nijaay bëgguma bàyyi sax ma ma ma def leneen. mooy bi nga demee ba xaw a kii. waaw ma demee ba xaw a dëgër. léegi bi nga dëgëree ba man dàll foofu mën a defar dàll. waaw après mujj mujjoo jekk-jekk euh, comme xale yu góor yi fipp xam ne la ñu doon teg fi ne nii maanaam teggeeku na. <laughs> non fippuwuma parce que dama topp rythme bi rek ba yàlla dogal sam nijaay ne ma demal comme mokkal nga. Hmm. ma dem ak suma métier. mais avant ngay mokkal mais avant ngay mokkal weccet wi dana gën a dugg léeg-léeg. daawul non non non non non gën a dugg daan nañ ma neexal rek. même ba ni nga mën ba ni nga mënee defar daal la. waaw ba ni ma mënee dañ ma daan neexal rek. dañ ma daan neexal parce que xam na ne li may def mën naa ko ndax yàlla am na lu ma may aussi ba may jàng yàlla dafa dogal ma mën a dessin te xam mhm. nga defar daal dagg ay mesure la dessin fabriqué mhm. te macha allah yàlla daf ma si dénk ba ma njëkkee dessin roi Assane 2 waaw woon da nga noo dessin woo lii ah roi Assane 2 ko dessiné woon ko dessin mu mel ni photo waaw ah. ma dessin sëñ Fallou mu mel ni photo ma dessin Mohamed Daw Tyson mu mel ni photo mhm. donc wàllu dessin yàlla daf ma si may moo tax pour ma defar daal day yomb ndax damay toog rek créer. Mhm. waaw damay toog rek créer. d' accord léegi léegi bi nga jógee foofu sa nijaay nga mokkal defar daal Mouride ma après fan nga dem. waaw léegi euh, sama nijaay dafa mujjee jógee si atelier bi. Mhm. bàyyi maag atelier bi moom mu dem village. Mhm. léegi man maa nekk si atelier kon yow sa maanaam sa sa sa jàng yëpp si benn atelier nga ko defee. waaw si benn atlé maanaam déplacé wu nañ. parce que jóge nañ tali bu mag. non mais si kenn laa wax quoi. waaw oh, waaw si kenn si kenn muy sama nijaay bi. d'accord léegi bi ma joxee atelier bi bi ma jógee si moom man maa géré. waaw. waaw léegi man maa fa nekk maag sama doomu nijaay boobu. ñoo nekk si atelier bi. loolu yan loolu yan année la woon. yooyu mi ngi nekk ay quatre-vingt-dix-huit. quatre-vingt-dix-huit. waaw ay quatre vingt daal. léegi après nga nekk foofu di gérer waaw après. waaw di gérer continuer suma métier di liggéey ba lé ba fi ma toll nii. après mais mais commencement bi est-ce que euh, yomboon na. non yomboon na parce que moment boobu doxoon na parce que secteur touristique secteur touristique bi dafa doxoon. waaw te boobu dañ doon liggéey daal touristes yi. daal li nga xam dañ koy leet touristes yi bëgg ko torop. waaw mu doxoon torop. Mm-hmm. waaw moo tax war nañu dimbaliwaat. mais est-ce que mais est-ce que ba léegi mais est-ce que ba léegi doxul. mais est-ce que ba léegi doxul non non non doxatul doxatul parce que man tax liggéeyatuma yooyu. ah ndax ñàkk dox dox. waaw mais pourtant Mouride euh, est-ce que yaa ngi ko yóbbu ci bërëb yi nga xam ne tey touristes yi ñoo ngi fay ñëw. no fi ñu ko daan yóbbu touristes yi daan fa ñëw ñu ngi ko fay yóbbu ba léegi mais ñoom tam gisatuñ touristes yi ni ñu ko daan gisee boo demee fu mel ni village artisanal bu Soumbédioune. waaw nga xam ne suma frère yaa ngi fa suma turandoo foofu la nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm. di ko wax Mouride Mbow. Mm-hmm. doomam mi ngi fa sumay mbokk ñu ngi fa. mais nu mu meloon avant ak nu mel léegi wute na trop. d'accord. léegi. Ah. waaw léegi dàllu uude quatre-vingt-dix-huit bii ngay wax nii. waaw ak léegi lan moo gën a dox métier bi. waaw métier bi léegi la gën a dox sëñ Abdou Khadir. métier bi léegi lañ léegi lañ gën a évoluer. Mhm. léegi dañuy fabriquer lu ne dañuy defar ay ferme dañuy defar ay talon jigéen dañuy defar ay carax par rapport ak bu njëkk ba nga xam ne ci der yi rek lañ nekkoon di defar ay daal der léegi dañuy évoluer boobu defaree daal danga naan daal tubaab la. waaw mais yéen euh, yéen nga évolué mais matière bi ngeen defaree dàll yi fan lay jóge waaw matière bi am na yu siy jógee Chine am na yu siy jógee Italie. Mhm. donc waaw même der bi ñuy defar Italie lay jóge parce que importeur bi la. mais mun leen defar dàll yoo xam ne lépp fii la jógee ci réew mi. waaw lépp bu ñu jàppale woon ñu am ay usines yuy traité der bi. Mhm. mën nañ defar lépp mais amuñu ko. ah usines yuy traité der bi daal matière bi. waaw amuñu ko dañuy jëlee der yi fii suñu réew. yóbbu ko bitim réew traité ko indiwaat ko jaayaat ñu ko. mais lool loolu loolu. te loolu garaaw na ah? loolu moo tax mu cher. kilo ah. der day dem ba ay huit mille francs ñu la koy jaay ba sept mille francs. maanaam der yi fii lañ koy jëlee. yóbbu ko Chine defar ko jaayaat leen ko. andiwaat ko jaayaat ñu ko parce que ñun am ay ay ay usines. yu kon daal ma ngi ma ngi mel ni ki ñëw jàpp suñu jën yi. yóbbu ko def ko ton andil ñu ko ko benn la. wala jël suñu meew mi dem ko transformé ko indilaat ñu ko jaay ñu ko. benn la sëñ Abdou Khader. waaw mais mais mais mais nag Mourine Mbaw loolu nag euh, doy na waar ah. dafa métti dafa métti sëñ Abdou am na beneen der boo xam ni fii lañ koy traité naar yi ñoo koy traité. Hmm. mais yooyu mënoo si defar daal yi bëgg. par rapport ak der bële parce que daal bu nekk daa am der ko a. d'accord mais waaw mais Aliou euh, yow yow Mouride Mbaw euh, Chine. est-ce que du mooy seen concurrent. bu mag a mag. Uh-huh. waaw concurrent bu mag la am na lum ñu empêché mais. at yi ci ginnaaw la gënoon métti que at yi ñu nekk parce que at yi ci ginnaaw nit ñi comprendre ñu woon. mais problème bi fan la fan mooy problème bi yéen ak yéen ak dàll chinois yi. waaw ñun ak dàll chinois yi mooy état moo ñu war a jàppale. aussi suñu maire yi xam nga dañuy jël lépp ba ko teg état état moo war a jàppale ouvrier yi non maire yi aussi dañoo am droit jàppale ouvrier yi pour ñu doxle parce que marché boo demee ñun ñooy créer comme li ma la wax dañuy dessin dañuy fabriquer. donc gis nga bu ñu génnee benn modèle Abdou Khader suba chinois bi tàppe ko dóol ko si ordinateur ñoom ñu indi si ay conteneur te yow yaay créer modèle boobu loolu gàllankoor la mais ba tey du bokk léegi jigéen suñu mbokk jigéen ñi xam ñoom ñoo gënoon bëgg daal chinois léegi ñu ngi koy commencé daw parce que daal bu ñu bëgg si euh, chinois bi rek bu ñu ñëwee ñu defaral leen bu mel noon te muy gën a garanti. muy mhm. gën a garanti fuuf euh, bi si des li ma lay wax état daf ñu war a jàppale mais maire yi dañu war a jàppale aussi xam nga liggéey comme ni ko menuisier bi di waxee comme ni ko tailleur bi di waxee dañu war a jàppale suñu réew ñu def consommé local mais consommé local euh, ki nga xam ni dafa gérer mairie tabaski jot wala korite am na coordinateur bu nekk koñam mais na na na jël si budget maire bi ni xale yi koñ xale yi gox bi maa leen di solal ay daal naa dem si Mourine Mbaw coordinateur la moo nekk si gox bi ma commande ko mille paires wala deux mille paires yu xale yoo xam ni moom moo maa koy jox xale yi koñ bi xam loolu dina dimbali murit dëgg la waaw dina dimbali murit au lieu que ñu dem si état di jooy rek état état état mais maire bi mën bu dee dafa soxla table na menuisier bu a def exactement am na menuisier bu a def élèves yi bu ñu sol élèves yi bu ñu sol tenue am na tailleur bu ko mën laa jëm léegi nag du lépp état lañ ko war a sëf parce que mën nañ ko ñoom te loolu day jàppale ouvrier ba pare dina tax ouvrier yi nga xam ne dañoo dañoo bàyyi woon seen métier di dem si gaal yi mën a toog parce que yor métier aussi mënoo si am cent franc wala deux cent xam nga nga dem si gaal yi da la koy gënal mais tey boo amoon lu mel noonu nga xam ne Korité di nga mën a téye benn somme bi di nga am départ aussi parce que loolu boo fa jógee di nga am départ boo liggéeyee te liggéey départ kese la. d'accord léegi euh, Mouride Mbow. waaw yow euh, ñaata daal ngeen xëy mën a defar. waaw ça dépend si qualité yi. parce que am na daal boo xam mën nga xëy defar si dix paires. Mhm. am na daal boo xam ni soo xëyee su booba jant bi soo cinq paires nga mën nga ko ci defar. cinq per waaw mais qualité yi du bokk parce que ay daal yoo xam day jar huit mille la dix mille yooyu mën nga si defar cinq paires soo góorgóorloo. Mhm. su nekkee carafu jigéen soo xëyee mën nga ci defar ba vingt per sax. mën nga defar ba vingt jërëjëf euh, Mouride Mbow mbokk yi cordonnier la euh, yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission euh, petit métier muy am samedi bu jot bu treize heures trente jotee jàpp quatorze heures ngeen di sànd ak du Khadre sekk léegi Mouride Mbow waaw yéen gis nañ ne am nay dàll yu jógee Europe di ñëw Sénégal waaw est-ce que yéen seeni i dàll yéen uude yi cordonnier yi seen i mu ngi jóge Sénégal dem ci yeneen yeneen réew yi waaw suñu dàll mi ngi jóge fii di dem yeneen réew yi mais comme daal yi ni muy jógee bitim réew di ko duggee si réew mi ñun suñuy daal di noonu si réew mi di ko duggee bitim réew. lu waral loolu. su su raison bi rek li ñu leen defaral si daal bëri na trop su raison bi dañuy jël fii daal yu bëri di ko yóbbu mais fu mel ni ay ay ay Europe ay ay Asie yu koy xamul daal yi ni muy jógee fii di ko demee foofu amuñu jàppale boobu. parce que hmm. li ñu mën a dimbali mooy ñuy ñuy yaatal. di exposer si foire di participer si foire yi di di di di génn di génn daal nit bu bu bu mënee rek dañ ko dimbali. maanaam mais état bi est-ce que jàpp nga ne def na promotion cordonnier yi Sénégal. foofu laay foofu laay waxee deful promotion bi ndax dama dama daan wax ni état day woote consommer local ñuy def conseil des ministres gouvernement bi ñëpp taxaw nga xool yére kaw ba suuf. duñ sol yére boo xam ne suñ tailleur yi ñoo ko ñaw nga xool taable bi suñu menuisier yi defaruñ ko nga xool dàll yiñ sol yëpp bitim réew la jóge naka lañ ñuy waxee consommé local. dëgg la li nga wax ni dëgg la Mouride Mbow. suñu artistes yi aussi muy waykat yi muy mbëru làmb yi muy ñëpp waroon nañu mën di sol suñu suñu mbir yi di ko wane. dina encourager dina encourager. sénégalais pour ñu consommer local. maanaam maanaam li nga wax nii moom li nga wax nii moom maanaam dëgg la goo xam ne sax euh, président Macky Sall si boppam. moom moo si waroon a jiitu. comme ni nga waxee nii ci conseil des ministres bi. loolu mooy dëgg tey moom. am na ndaw ñoo xam ne soxla wuñ ku leen financé. waaye li ñu soxla mooy ku leen jàppale ci promotion bi ku tax Sénégal yi gëm consommer local. waaw loolu rek lañ soxla. waaw Macky moom day wax consommer local mais gëmut consommer local ndax doxewu ko. loolu mooy dëgg wax ko def te jëfewu ko. Abdou Khadir waaw boo génnee si dëkku njag yi seen gouvernement yi bu ñu demee conseil des ministres seen seen yére yooyu cosaan yooyu waaw moom ngay gis ñu sol ko mhm. image bi nekk partout dans le monde mais ñun da ngay di ruus nañ sax sol yére olof. mais mais mais yow Mouride bu yow Mouride Mbow yow bu la Macky Sall waxoon na la conseil des ministres damaa bëgg nga defaral ma trente daal pour ñu wane ko. kon nga defaral ko gratuite. wallaay ñu defar ko. wallaay ñu defar ko. bu ko defee ñoom ñu man koo sol xam ne conseil des ministres tey Mouride Mouride Mbow moo defar dàll yi yére yi. ba Ndiaye moo ñëw tënk. waaw loolu mooy jàppale doomu réew mi ba doomu réew mi mën a toog seen réew ñu bëri ñu ngi bitim réew. lan moo leen fa bàyyi parce que am nañ seen i métier mais mënuñ si jariñu dëgg la ñun ñun gëm-gëm rek moo ñu si bàyyi. Abdou Khadir man proposé woon nañ ma bu yàgg avant 2000 pour ma génn dem Côte liggéey foofu mais dama bañ parce que gis nga ni ma ni may jooyalee réew mi di kaasalee réew mi noonu laa bëggee réew mi noonu laa bëggee li may liggéey sama doomu réew di ko consommer sama doomu réew laa ko gën a yéene que keneen te Abdou Khadre gis nga dàll dañ koy xeeb mais ak am solo mm-hmm. est-ce que xam nga ni dof boo gis mi sol dàll bu ko ay mbokkam fajee mu wér mm-hmm. mais dof boo gis mi def tànku neen peut mu neex a faj peut du neex a faj te gis mm-hmm. nga gan bu ne salaamaaleykum si kër taal mm-hmm. yi la ñuy a xool. Mm-hmm. même même bu doon gan sax kay. waaw Abdou waaw xoot xootil trois morceaux jazinaire. waaw lu tax loolu mu rimba li nga wax ni mm-hmm. dafa garaaw mu tax. ñaw ko ba mu rafet. waaw. nga def tànku neen nga xool lu ñuy wax. dëgg la. dañaan naan wéerul. waaw mais lan moo tax daal la daal la même ba léegi nii sax da ngay dem feen mais sax daal li ñuy njëkk a xool lu waral loolu. daal la ñuy xool parce que dafa am lu muy représenté dégg Souleymane Faye la muy la mu doon way mu ne yàlla bu wàccoon ci kaw suuf daal yi lay njëkk a xool. Uh-huh. parce que daal dafa am lu muy représenté. te dama gis ne dafa am ñoo dañoo fonk daal aussi. dañoo fonk daal am xaar ñun rek ñoo fonkul daal. mais gis uh-huh. nga boo génnee dëkku ñag yi. Uh-huh. boo duggee seen néeg yi da nga naan ñii day jaay daal. façon daal bu nekk. façon daal bu nekk. mais fii danga ngay gis koo xam ne liñ naan ay ñoxet maa ko doon wax benn paa ndeysaan paa joxaane mujj gi da koy remarqué. ma ne ko am xaam ne ko day xool nit ñuy jaar bi ku romb ay ñoxet lay sol. ay ñoxet mooy lan ay ñoxet mooy daal di sagare daggatoo ba neex a yóbbu oto mbalit ba. mais paa bi def paa bi def remarque boobu mais ku romb rek mu ne ma li nga waxoon dëgg la de démb aussi dal na ma euh, mu nekk xeex boo xam ne dama ko yàgg xeex ak jigéen ñi parce que dañ fi romb ngay defar daal jigéen ñu rafet ñu dem jëndi daal chinois sol ko ñaari fan mu décollé ñu andil la ko yow cordonnier bi ne la defaraatal ma ñu bëri dama leen nii refuser ne leen du ko defar dem leen fa ngeen ko jëndee woon ngeen defar ko. dëgg la. te fula boobu dama ko am. parce que mais mais est-ce que yéen a moderniser aussi Mouride Mbaw. ñoo ngi moderniser Abdou Khadir soo gisee daal yi defar nga xam ni dafa dafa dafa maanaam am nañ lépp luy moderniser daal yi bu ñu defaree daal ba teg ko da nga yaakaar ne importé la ndax taaru macha allah garanti aussi Mm-hmm. mais yéen mais yéen euh, ay lu demee ni ay exposition comme par exemple tey ñu ne tey daal foire bi moom euh, dàll kese la. waaw loolu. waaw dàll yoo xam ne nag si réew mi lañ koy defee. waaw kay mooy li ma la loolu am na fi Abdou Khadir. Mm-hmm. wallaay ñi ko mën ñi ngi fi. mais amuñu ko leen jàppale loolu eh, loolu état la état moo war di organiser lu mel noonu. wala wala waa ministre bi rek. waaw ministre bi. ministre bi waaw mooy état léegi yéen xam nga tamit murid euh, loolu dafa am solo fi nii tey bu ñu organisé woon fu mel ni Pikine. waaw wala dem ngaay wala Medina. waaw wala Caaroy def benn foire boo xam ne. uniquement dàll yi ñuy defaree fii saag yi ñuy defaree fii ceinture yi ñuy defaree fii pochette yi ñuy lépp la ñuy defar. léegi bu ëllëgee ay pochette téléphone sax dañ koy defar. waaw waaw bu ëllëgee ñu ñu nangam ñu woo yeneen yeneen yeneen métiers yi mais loolu daal gis nañ ne murid vraiment état bi waroon na koo def te gis nañ ne defu ko. état moo ñu puusul ñu tàkk Abdou Khadre ñi ngi exposé ñi ngi def ay foire yoo xam ne ay xar lañ fay dajale ay ay ay pigeon ay ay ay yooyu hmm. pourtant loolu bërki dee mboo njaay la fi dëgg na mais ñun jamono maam ba léegi ñu ngi ci métier bi suñuy maam dañ doon dañ doon defar ay ay tegu fas maanaam état bi moom li mu fi nekk naan ay ay emplois de jeunes yëpp maanaam ñi am métier rek ba léegi xam nga nit ki ki amugul métier dëgg la kii amagul métier nga ne da nga koy wutal métier mais ki am métier fexeel mu conserver métier moom nga jàppale ko ba nga xam ni kii amul métier dina gis ni kii yokku na ci métier ba mu dem ba ba mu am courage dem dugg ci mais tey mënatoo am benn emprunté Abdou Khadir ah emprunté moom mënoo ko am lu tax parce que image dafa am solo dëgg la buñ gisee ni kii li mu nekk mu ngi ciy yokk ba yëg ko parents yi sax ñooy njëkk ni demal jàng métier sàngam yaa ngi wax lu garaaw Mouride Mbow non lu lu doy waar. Mm-hmm. parents yi ñoo lay njëkk ni demal jàngi métier sàngam. Mm-hmm. parce que am nañ ci yaakaar. non même Mourine Mbaw bu ñu gisoon tey ñu ne président Macky Sall invité benn benn benn euh, euh, benn benn cordonnier. waaw. Euh, tey ëllëg mu ko mu invité benn benn tailleur. waaw loolu day tax. boo invité benn cordonnier mel na ne invité nga cordonnier si réew mi yëpp. mel mel na ni invité nga cordonnier yëpp. nga ne léegi dàll yii kat Mourine Mbow moo ko defar yii pour Marème la yii pour Macky la yii pour nangam la xam loolu rafet na wane ko ci télé bi RTS télé yi wane loolu loolu ah, mooy gëm loo sandaw sandaw euh, réew dëkk bi loolu moo leen di encouragé loolu moo leen di toogloo aussi leen di motiver moo leen di motiver loolu mooy doxal métier aussi dëgg la ñu nga gis ñu dem ñëpp dañu découragé Abdou Khadre ñi doon dem ci gaal yi bul yaakaar ne ñu amul métier lañ de mhm. ay borom métier ñoo doon dem ci dañoo découragé dañoo découragé nit dañ la war a gis ngay ngay ngay yokk. Mhm. li nga nekk soo si nekkee dix ans vingt ans. Mhm. xoolal quatre vingt neuf ba léegi nga nekk si métier. Mhm. ngëm-ngëm mooñ si bàyyi. am na ñu bëri nekkoon nañ ci mais dañu bàyyi nekk si leneen. am ñoo xam dañuy dem nekk si leneen. loo lii tane ñu daw ñëwaat. mais ñun ngëm-ngëm mooñ ñu si bàyyi. dëgg la de. xam ni li yàlla di wax. inna allaha yarzuqu man yasha man yàlla maay wërsëgal ku ma neex. Mm-hmm. donc ñu toog di xaar yàlla. d' accord léegi léegi mu Mbow. waaw yéen su ngeen bëggoon tey bi jàppale leen. waaw lan ngeen koy wax lan ngeen bëgg mu jàppale leen si. waaw lim ñuy jàppale euh, bokk na ci li ma doon wax sànq ñu ñu ñu ñu am ay usines yoo xam ñooy traité der yi. Mm-hmm. comme ni ñu ko bëggee ñu mën di di di ko am fii sans ñu sonn. Mm-hmm. mu yomb aussi foire yi comme ni nga ko waxee ñu organiser ay foire yoo xam ni dañ fay exposer daal yi. nañuy consommer nañuy consommer ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw nañuy consommer suñu dàll yi. Mhm. parce que Sénégal yi yàlla daf ko nattoo benn nattu mooy dañoo mën a wujje. Mhm. te bu ñu gisoon gouvernement bi ni ay dàll uude lay sol ñu dem assemblée député yi ni ay dàll uude xam nga dem hors conseil ñu def noonu léegi réew mi yëpp. li nga wax nii daal mooy dëgg kilifa yi daal bu leen réew mi ñoree ndaw ñu ñor leen. waaw bëgg ndaw encouragé ndaw ñi lii nga def nii sa simple. moo gën a gën sax moo sax sa gën sax xaalis bi ñu leen di jox. Abdou Khadre xool soxlawuñ xaalis ñun nañ ñu defal formation rek nañuy consommer li ñuy defar di ko wane fépp di ko ndamoo aussi di ko ndamoo. dëgg la. parce que comme ñooñu jiite ñun lañ fi nekkal. ñooy mhm. ñu sag dañ ñu war di sagal fu ñu toll. dëgg la li ma wax sànq aussi maire yi aussi ñu jàpp ñu si si si loolu. d'accord. waaw loolu daal la laay laay ñaan. jërëjëf Mouride Mbow ñoo ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf sëñ Abdou Khadre maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm. jërëjëf euh, Mouride Mbow mbokk yi cordonnier la euh, nekk fi nga xam ne mooy Pikine euh, ñetti mbaar ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi lii moo nekkoon seen émission petit ci muy am samedi bu jot bu 13h30 jotee jàpp 14h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw jàll moo nekkoon ci wàllu machine bi kon mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jataay